لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Hazır

fekkee ci ak gi danoo ci aj ndax ñun yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal te tamit ni koy ni nga koy diglee rek Mbàkke noonu lañ koy defe fu nekk duñ fa yaafus ndax dama leen di wax ne suñu loxo bii sëñ Tuubaa rek lañ koy dal moom nag bi mu ñëwee ànd naag ñun ci loola muy sëñ Xaadim mii di Cheikh Abdou mii nga xam ne moom Touba Njaar bi la dëkk. Alaaj Njaga Njaay ci Louga mooy mooy mooy baayam waaw mooy secrétaire mooy bi mooy daa mel ne am ministère mooy secrétaire général bi waaw ànd ak ànd ak colonel Thiam ak ak ak Cheikh Tidiane Guèye moom naka jëkk lu jiitu mu nekk fii itam lépp loo mas a digle ca ba mu fa nekkee xam nga moom la fa Seexuna wuutu woon Seexuna bu Alaaji Baara foofu la njëkk a nekk nekk consul bi ñu ca Jadda ñu yóbbu ko nag keer mu nekk fa ambassadeur fa la jóge ñëw fii waaye ba mu fa nekkee nag moom la la Abdou Khadir doon wax jili jili léegi sëñ Abdou Aziz Moustapha Abdou Aziz di la seedeel ne la moom kat euh, taxawaayu muridu saadix la taxawan ci lépp luy sa mbir lu jiitu ñu di ko jox lii wax ay taxawaay yu am solo yoo xam ne eh, bañ fa demee taxaw na ko bu mat sëkk loola moom la doon seede loola it moom la ñuy seede ci moom eh, diir bu mu fa nekk ndax fa la jànge gannaaw bi ñu ñu téye woon ko fa waaye diir lu mu fa nekk lu ne ci soxla yi nit ñi lay nekk du yónni kenn tey nag moom la yàlla teg ci mbooloo mi ñuy ñaan nag eh, sunu borom sax mel na ñaan gi sax tawféex bi Eh, moom doy na waar dañ koy sant yàlla ndax bi ñuy ñëw kat jàq nan lool te ñun ñëpp dañ doon yéene fas ci ñëw gi ne buñ ñëwee bala ñuy génn dëkk bi luy soxla si na kii kon nag tawféex ji moom danoo gàttandoo waaw <laughs> waaw muy ñëw rek di la gën a dénk boppam ak mbooloo mi mu àndal yëpp daal ci ñaan noonu nga rek ñaan gi gungeenu rek ànd ak nun ban da ci am tawféex bu baax a baax am na yéene it ak taxawaay bu baax ci mbooloo mi nga xam ne eh, mooy sa njabootu bopp gi lépp luñ ca daan def rek nee na dana ko nee dana koy ful <laughs> maxtaar incha allah jëw jëwriñ ji nee lépp luñ ca daan def daal nee dañ koy ful incha allah. ma lumu lu mu xat xat xat. waaye dinaa def pexe ba ñëw fi euh, ziar sa les sàq la ñaan euh, xam ne euh, li nga xam ne moom lañu moom la ñu yore ñun ñoo ko bokk njaboot bi yëpp ñun ñoo ko bokk waaw lépp loo ci mën si ñaan rek eh, ñaanal ñu si incha allah te encore eh, amin yaa rabbal alamin te te incha allah déwén donte jël eh, léegi lañ koy doo a jot waaye déwén incha allah dañ ko bëgg a yaatal defaraat ko bu baax comme ni ko président bëggee wax dëgg yàlla ñu ngi si sàkku sa ñaan bu baax jërëjëf jërëjëf xam naa xam naa ñoom it liggéey bi ni nga ma ci booleeg ñoom it bi ma tàmbalee jëflante ñoom it lépp lu lu lu aju ci rafetal maanaam ñu ngi ciy def seen kem kattan waaw ah, ma ci benn jafe-jafe maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. am nañu mbégte lool lool la waaw koy ko sëñ Xaadim leeral rek. Mm-hmm. fa am nañ ci xol bu set bu ñu dinañ euh, ci dinañ ci gën a euh, gàttaloon cant bu rëy ak ngërëm waaw ndax ñaan li nga xam ne soo dafa ko dindi mi gën a yaat dañ leen a gàttal tawfeex. amiin yaa rabbi gën a yaatu. nga jiite jàppale ko. amiin mën a àggal seen yéene. amiin waaye suñu xaw seet la bu baax. taxawaay bi. waaw kon nag dégg nañ ko mën ko suñu xaalis weer la. waaw xaw seet lu ci bu baax. yéen nañ leen ko lool. ñu yokk rek lañ leen ci ñaanal. waaw ñu ngi ànd ak yoon de Paris. waaw dawal lislaam rek lañ leen ci ñaanal. amiin jërëjëf tey dañoo ñëwoon fii comme ni nga xam ne ñi ngi fi jiitu woon di ko aadee di def euh, mooy ne képp ki nga xam ne fal nañ la euh, ci boppu euh, aj bi nga daal di ñëw giseek ñëw ziyaare kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yore diine bi fii ci Sénégal këru diine yi parce que ku wax aj nga xam ne moom moo di cinquième pilier de l'islam di juróomeel ponk di l'islam ci l'islam diine moom moo ko moom kon ku wax ak wax diine te ku wax diine tamit euh, fii ci Sénégal wax këru diine yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk euh, tey ci mbaaxu yàlla ñëw nañu ziar si sëñ Mountakha euh, yal na ko yàlla yokk wér te yàggal ko fi te jàppale ko bu baax ngir lan ngir ziar si ko encore sàkku si moom ñaan mu ñaanal ñu li nga xam ne moom la la ñu président de la république euh, Macky Sall dénk te am yaakaar bu mag euh, ci ñun euh, yàlla daal di mottali yaakaar bi yàlla bañ a tas yaakaar bi te encore di ñaan toujours jàmm ak salaam yal nañ ko yàlla may xam ne jàmm bu amee lépp lépp dina baax waaye bu jàmm amul kenn du tal lekk kenn du tal naan kenn du tal sax jaamu yàlla kon ñun ñëpp war nañu euh, taxaw sénégalais bu nekk mag ak ndaw góor ak jigéen ñun ñëpp ñu taxaw di dox si jàmm di wax jàmm ci lépp li nga xam ne dafay jubale ci jàmm te mu nekk li nga xam ne euh, lépp li nga xam ne dafay indi fitna wala di euh, yàq li nga xam ne moom di suñu réew ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk toujours ñuy wax Sénégal ñun suñu gaal bi ñun ñoo ko bokk te yàlla mu ngi wax ci alquran wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa euh, moytu leen fitna fitna bu ñëwee du xam kii moo tooñ du xam kii tooñul ku xam kii moo ci bokk xam kii moo ci bokkul lépp lay ëmb kon nag ñun ñëpp Sénégal ñu ñoo ko bokk nañu ñaan yàlla nañu jàppoo nañu yërëmante nañu dimbalante jàppalante xam ne gaal gi ñun ñëpp ñu ñoo ko bokk su suuxee ñun ñëpp ak suux yal nañ ci yàlla musal kon di leen euh, vraiment di leen gërëm euh, di leen sant Euh, naka noonu tamit dinañu dem si yeneen këru diina yi ñu waxoon rek incha allah ni mu xat-xat-xat dinañu euh, ñëw fii euh, ziar si gis suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk ziar encore bërëbu jàngukaay yi gis nañ fi li nga xam ne lu ñu yéem la ci ay ay téere yi nga xam ne wax dëgg yàlla ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci ku ko ubbi di nga fekk ci xam-xam bu bu xam bu bëree bare bare bare ak gi bi mu commencé ba léegi amul coow Euh, équipe bi mu ngi taxaw ni mu war a taxawee euh, ñu ngi jàppalanteeg voyagistes yi euh, lépp seen lépp li nga xam ne seen soxla la ñu ngi siy taxaw te amul benn problème démarré nañu voyagistes si commencé nañu depuis ñetti fan te ñi nga xam ne ñoo yegg foofu te ni egg nañu si jàmm te ñu ngi jokkoo ak ñoom. amul benn jafe-jafe bi nga xam ne moom moo ci am kooku di si ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala beneen bi moom mooy délégation bi